waaw wow dañu koy door ak source a mi xëy àddu jëmale ci commission des lois bi nga xamante ni daal di nay rejeter proposition de loi bu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci suppression bu au conseil des collectivité territoriales ak conseil économique social ak environnemental source a ne ma ça passe ou ça casse en tout cas tey ca assemblée nationale du yomb de yéeni kaayub source a bi daal di dalal docteur Cheikh Diallo mi àddu jëmale ci ñàmbat bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom waa député yu Benno Bokk ni dañoo voté ngir ñu mën a supprimer lii nga xam ne moom mooy HCCT ak CESE e. daañu nag gàkkal bilan bu président Macky Sall waaye tamit daañu yàq seen diggante ak seeni camarades yi nga xam ne ñoom lañ bokkal coalition wala parti yéenekaay bi ne lii nag dina nekk trahison de dog seen ay conviction politique waaye su fekkente ne ca wet ga ñii nga xam ne ñoom ñooy seen ay dandoo ci langue politique gi daañu leen bàyyi ñu faatu fa yàllaaxu ba tey nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu docteur Cheikh Diallo nee bu fekkente ni député yu Benno Bokk bokk yaakaar yii dañoo daal di voté contre nag ñu supprimer yii les institutions maanaam su fekkee dañoo bañal président Bassirou Diomaye Diakhar fay lii mu bëgg dina tax askan wi jéppi leen de askan wi nga xamante ni ñoom ñoo fal nguur gi fi nekk daañu nag amal li nga xamante ni moom moo di fippu ngir ñu jóge fi ba faaw Sër Cheikh Diallo di ma xamal ni boo bëggee dégg dëgg nag choix bi nga xamante ni député yu benn Bokk Yaakaar nañu nar nañu ko amal tey ca assemblée nationale bokk na ci choix yi gën a métti ci seenu carrière parlementaire fekkente ni dañoo voté pour daañu faatu fa yàllaaw bu ñu voté contre itam daañu faatu fa yàllaaw docteur Cheikh Diallo ne ma ban intérêt nag la premier ministre mii nar a am Ousmane Sonko ngir jàkkaarlook ko assemblée nationale boo xamante ni li ko fi dase si fan bareetul tul sax fukki fan ak juróom nag mu ne day jàkkaarlook ñoom def déclaration de politique générale lii nag moo ma daal di jaaxal Cheikh Diallo di ma xamal ni ñu mën a tasaare lii nga xam ne moom moo di assemblée nationale mooy ay élection législative ñu mën kaa jàpp ci bésu premier décembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal wala dimanche ba ca topp di 8 décembre ubbil critique quotidien mi xëy àddu jëmale ci boobule blocage bi nga xamante ni amal nañu ko niki samedi bi ñu weesu yéenekaay bi di ma xamal ni majorité bii nga xamante ni waa Benno Bokk Yaakaar ñoo ko daal di amee boo daa ñu gas seenu ko bàmmeel ci bésub tey yéenekaay bi di ma xamal ne député yu Benno Bokk Yaakaar yi joxe nañu signal ba de samedi ñu weesu ci commission des ngir xamante ni président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina koy sàkku ngir ñu dissoudre HCCT ak CESE waaye nag boo bëggee dégg dëgg te yu bennoo bokk yaakaar yi boo watuwul ñoom ñoo nar a anticiper lii nga xam ne moom mooy tasuk assemblée nationale bu fekkente ni Abdou mbaw ak ñamu àndal dañoo taxaw temm ngir aare yoonu nguur gi mu liggéey bés bi la jour di ma xamal ne tey ca assemblée nationale du yomb de foo ko natt rek nar na kaaweesu ndax bennoo bokk yaakaar bëgg nañoo sukkandiku ci ñi nga xamante ni ñoo leen fal ngir bëgg waaye duyoo ba séntu nañu ko ca diggante yeewi ak wàllu comme nañu ko amalee woon ca commission des lois ñii ñuy woowee lee non aligné nag boo wattuwul daañu aligné wu ca gannaaw yeewi askan wi le quotidien le quotidien di ma xamal ni barrage bu njëkk ba nag amal nañu ko keroog ca commission des lois ba daal di rejeté li nga xam ne moom moo di proposition de loi ba plénière ba tey nag dina mel ni ba ngóor jaayee mbamba ne nopp ya du dem se ko yéene kaay ne ma kaay ma xamal la lii nga xamante ni moo amoon samedi nag entrée képp la nag plat de résistance ba ñëwagul de tey jii lay am bi ne ma député yu Benno Bokk Yaakaar amaloon nañu ab séminaire ni ki démb ngir waxtaanee ana ban stratégie lañu nar a am ci bésub tey kii ngir jàmmarloo nguur gi fi nekk Ousmane Diagne di ma xamal ni kaay leen man ab magistrat la bil enquête quotidien mi nga xamante ni ma nga mën naan lii mooy test bi njëkk bi nga xamante ni nguur gi nag fas yéene na koo amal ak assemblée nationale waaye kaay ma wax la kàddu Doudou Wade la seen ci ñoom rek dangaa yem fa nga war a yem yem tamit ca la nga am mani loi bii du jàll benn yoon de APR nag la ñuy woote moom moo di takk ba dëgër ngir jàmmarloo nguur gi fi ne oo ba vox populi ma nga naan man plénière bii de mani du fi amati de ndax gouvernement bi dafa nar a retiré bi le projet de loi wala dafay forcer barrage en tout cas projet de loi boobu daal dinañu koy rejeté ni ki samedi bi ñu weesu yéenekaay bi di ma xamal ni fukki baat ak juróom benn ñoo ko daal di voté contre fukk ak ñeent daal ni kaay nag ñu àddu jëm ci leneen ma ni lan mu ne ma recrudescence maanaam que kaaraange gi nga xamante ni nemmeeku nañu ko ci réew mi faat bakkan gi di mel ni tulleek man li ministre de la ministre de l'intérieur la ñuy seen ci xëtu yéenekaay bi lu toll ci fukki doomi aadama ak juróom benn faat nañu leen ci weer wi nga xamante ni moom la ñu génn lépp nag ci biir Sénégal la amee yéenekaay bi di ma xamal ni Jean Baptiste Tine mii nee na askan wi waruñoo ragal te dina taxaw temb ngir ñu aar suñu moomeel ak suñuy ñooñ Sud xamante ni moom mooy ñàkk kaaraange ci réewum Sénégal ma ni suñu askan ña ngay jooy réewum Sénégal boo wattuwul nag dina egg ci ligne rouge ba ña nga kay alerté ca ligne orange lii quotidien ma kaay man mii maa lay wax bilan ba fa mu toll ma ni ci diiru weer képp lu toll ci fukki doomi aadama ak juróom benn faat nañu leen ci diggante juillet ak août lu toll ci ñeenti téeméeri nit daal nañu leen di arrêté ci week wii ñu génn nag ministre Jean Baptiste ne kenn nag bu mu ragal la génn bu mu ragal a doxi ay soxlaam ndax kaaraange gi moom dina na fi am par la force yoor yoor quotidien na ma kaay wax la na kaaraange gi ana fan lañ koy gën a séntu moom mooy ana nan la ñu yoree suñum koom-koom man lii ñuy wax népotisme lii ñuy wax nag jël say ñooñ fal leen fa leen neex lii ñuy wax ay yorin wu sooxee lii ñuy wax nag ay marché yoo xamante ne xamuñu ana kan moo ko moom man diggante 2018 ak 2020 lu tollu ci juróomi téeméeri million daal nañu koy retiré compte yu AGETIP kan moo ko moom mu ne ma DG ba képp nag ak i ñooñam lim ab magistrat politicien ak ay journaliste yu RTS yéeni kaay bi di ma xamal ni DG El Hadj Malick mii dafa transformé li nga xam ne moom moo di AGETIP ab moomeelu boppam ak ñoñam jëloon ab cousin def ko DG bi nga xamante ni moom mooy yor lépp luy wàllum administratif ak financier mooy daaf ba jël ab jarbaatam bu jigéen nag daal di koy def li nga xamante ni moom mooy gérer wàllum comptabilité jël nag beneen cousin am daal di koy installé ci cellule de passation des marché yeneen ñaari cousin am yéeni kaay bi di ma xamal ne ñoom la teg foofee ca service yu informatique beneenub jarbaatam mu recruter ko def ko vigile yéene kaay bi nag dikk ak ñun ci waxtaan wu yaato yaatu boo xamante ni am na ci diggante 2018 ak 2020 foofee ca AGETIP ubbil tribune quotidien mi dal di xëy fësal na talib Ousmane Sonko ak président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne Sonko ku Diomaye nag daañu suul au conseil des collectivité territoriales ngir mën a amalaat leneen maanaam yeneen institution la ñu fas yéenee samp ñu jóge fa nag dem ci beneen quotidien bii di Vox Populi mi fësal nataalub Ousmane Sonko ne taxaw na temm ngir ñu jàppale ñii nga xamante ni ñooy suñu mbokk ya nekk ca Palestine yee moom premier ministre ma ngay yàq lu mel ni xeme ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Israël Le Soleil quotidien am Ousmane Sonko nag keroog ba ñuy manifester ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu mbokk yu Palestine Ousmane Sonko wane na boppam de nee na réew yu baree bari dañoo mel ni ñu muuma ci coow li nga xamante ni moom moo dox ci diggante Israël ak Palestine booba l'observateur ma ngay àddu jëm ci leneen ne Sénégal nag am nañu beneen plan boo xamante ni noonu la ñu nar a liggéeyee daañu supprimer li nga xamante ni moom mooy juróom benn ñu bu ñaar fukki fan jotee ci weeru septembre ñu jeexal ak record yéenekaay mi fësal nataalub Saliou Ciss mi àddu jëmale ci carrière footballam ne moom ak football jeex na tàkk jamono ji nag ma ngay xool ana nan lay gérer mbiri boppam ba tey yéenekaay bi di record fësal regroupement yi nga xamante ni Lions yi ña ngi koy waajal tey ay entraînement yoo xamante ni bu 17 jotee daañu ko amal ngir waajal seen jongante ak Burkina Faso mbokk yi lii moo gënoon a fes ci xetu yéenekaay yi source jox dig daje ëllëg ci yeneen i xibaar